jërë ngeen jëf saafara suy bëgg a jur jàngoro moom la l'observateur xëya ubbil yéenekaay bi ñi yàlla nato wopiro ñoo di insuffisance rénale ginnaaw ba ñu tëjee hôpital Aristide Le Dantec toj ko ngir tabaxaat ko fa ñu yóbbu hémodialysé di ci hangar pèlerin bu Yoff l'observateur nee nañu la ñu fay dund mook jéggim siraata yam ne bari na yuy soxla ñoom hémodialysé yi te yooyee amu fa la am ndox di ñàkk bari jafe-jafey branchement assainissement bu ONAS hémodialysé yi di daj ci angar bu yoof mburu daju ko ci fuur ku tudd fuur xel dem ciw tàngoor li tàng dëgg Sud Quotidien nee nañu démb la amoon ci assemblée nationale ba ñuy wooteel ministre intérieur budseem woot budse ba yéenekaay bi nee nañ koy defaat ndax mujjul am démb président assemblée nationale di Amadou Mame Diouf dafa suspendre ndajama ndax biccoog mbaalo guréy gu fa amoon démb ci diggante député opposition bi ak député Benno Bokk Yaakaar yi li waral coow la Vox Populi mi koy wax ne député Ami Ndiaye la ñu wot budget ba taxaw ne bu député Amy Ndiaye ci li mu wax wot budget du am ci assemblée nationale wot budget bu ministère intérieur démb ci assemblée nationale journal ju fa député Amy Ndiaye bi wax Serigne Moustapha Sy moo ko waral ba dañoo mujj suspendre wot ga ministre intérieur Antoine Félix Diome Les Échos ne nañu dafay delluwaat ca kanamu député ya tey démb ca kanamu député ya moom ministre Antoine Diome le mandat ne nañu ragal na fa mbooleem tuuma yi ñu teg ci ndoddam bi ñu koy laaj ba laajtu ci nervi yi ñu gis ca manifestation yi li ci Antoine Diome tontu moo di ministère intérieur du liggéeyloo ay nervi du liggéey ak i yi yombuloon dimb ci assemblée nationale mu di nervi yi lu ci nekk député opposition bi tegal nañu ko Antoine Diome bit sa ministère intérieur le quotidien mi ngi ñuy wax ne buñ ko wootee dana ci am ak yokk gu jege 149 li waral yokk bokk gi yéenekaay bi nee nañu bokk na ci exploitation hydrocarbure gi ñu séntu ci réew mi ak xeex gi ñuy xeex wàllu terrorisme l'observateur tax nañu bit sa ministère intérieur boobee bu dee danañ ko wote tey lay doon ndax session démb ba yeggul ñu yegg ci xët mu njëkku laaj tribune kàdduy tontu ak kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci directeur de l'emploi di Pape Modou jëm ci honorable député Pape Djibril Fall yéenekaay bi nañu député Pape Djibril Fall mi doon ñaawlu mas a jaar yëpp amul kenn ku ci mas a def ci fukki yi président Macky Sall def ci bopp réewum Sénégal Pape Modou Fall nee na lu ëpp 544 milliards bi dugal na ko ci promotion emploi des jeunes ñu des ci waxi emploi di am xëy ak direct news mu ñu xëy xamal ne am xëy am na ca porum Dakaaru njiital port autonome de Dakar di Mountaga ak li mu fas yéene mu di recruter ca port ñaari junniy jeunes fay liggéey yéenekaay bi nee nañu opération ba tàmbali di former dugal leen ca port ñuy liggéey le mandat bi na ci xëtamu njëkk ne portum Dakaaru ma ngay joxe liggéey liggéeyal Linguère ay infrastructure sportive yu mucc waa Grand Place nee nañu loolee mooy bëgg-bëggu Cheikh Niang président ODCAV bu Linguère pelouse synthétique ay stade ak ay projecteur nee na moom la Linguère soxla journal bi nañu ba ñuy amal final départemental dëkk ba fa la ko waxee di final bopp maître Amadou Ka bu Sirne bi ñu ko parrainé woon na ci ndaw yi di a góorgóorlu ba génnee fitna di violence ci sport bi sport ba tey ak coupe du source waa xëy séq waxtaan ak El Hadji Ousseynou Diouf ci match bi Sénégal war a suba ak waa Équateur ma nga leen fay wax moom Diouf fa mu jàpp ne fa la ñu mën a jaar ngir dóor Équateur soleil national nañu gayndey waaj nañu ba jekk ngir seen ñetteelu max bu suba bi seen digg ak Équateur trois ci ngoon ca lay doon stade yéen a kaay xëy ñu baaxee ni Sénégal waajale boobile match record yéen a kaay xibaar ñu ne entraîneur bi di Aliou Cissé bi mu tegoon keroog contre Qatar ba gagné ba système boobee lay tegaat mu di 4 4